bonsoir euh, comme tous les week-ends comme tous les week euh, leen kenn ku ci nekk ci turam ak santam fekk la sa kër jox la loxo fas yéene ànd ak yow 15 heures ba 15 heures et demi comme chaque week kala bi yow mbi mi ewi mi ewi maami yoɓe faam fidèle serviteur yoro saw sur la 2STV originalement voteur tey suñu sommaire journal dinañ dem lu njënti li nga xamante ne bii ni mooy internet ñi ne nañ baax na ñi ne nañ baaxul ñi ne ne nañ loolu dinañ ci dugg suñu biir euh, journal bu ñu fa jógee tamit dañuy dem daal di li nga xamante ne bi nii mooy jën lan moo tax mu manqué ànd si ak nga xamante ne bi nii mooy suñu reportage yi di jour yi bu ñuy delsee daal di si seen revue de presse nga xam ni presse bi journal yi li weesu une semaine moom la ni nit di dajaleel daaj leen ko samedi bi ngeen amaat récapitulation ne si kiis ñu dem si yaatal bi ak faram fàcce bi ak tastasal bi booba rek voilà comme euh, comme ni ma leen ko waxee woon ni sur le sommaire de la journal seetlu nañ ne temps yi daal jën dafa manqué daal ñu fi ne nii daal ay ceebu keccax moo gën a bari ci kër yi ak ay mbaxalu saalum ah teg togg yoo xam ni day accompagner géej gi quoi moo ëpp saa yi nii sur la sondage de la boolu midi léegi nag comme sur la sondage boolu midi y a plus de ceebu jën qui a dominé on va aller sur la reportage xool Samba si from Jella lan la ñuy wax ci jën yi nga xamante ni bi nii dafa manqué maa jox ma élément ñu dem maa ne tooy képp <laughs> bonjour ce qu'on a constaté on a constaté que ni lii di yërënkal yaranka lii di yërëde lii di bër lii di coof lii di jarañ lii di 4 mètres lii lii njabootu bër njabootu Katmen njabootu Yarada ak Yaranka ak ñoom ñëpp daal àndandoo nañu raaf ci géej gi ba tax waa marché poisson ba daal di xëy doxal dox mu njax tourné dootuñu jaay jën seetlu nañu kër Alaaji Malick Cissé seetlu nañu ne tamit kër président li nga xamante ne bi moom la ñuy añee fan yëpp kee bu kaccax la te bu yàggee mën na indi ay ay ay ay yàqu-yàqu ba tax na daal ñuy waxaat li nga xamante ni bi ni mooy waa jaaykatu jën yi ñu dékk leen sunu micro ba xam lan la ñu wax ci wàllu njaayam jën mi ak yëre de bu manqué bi yaboy sax gisatuñu ko te yaboy nekkoon na li nga xamante ne bii mooy le préféré des sénégalais le préféré des sénégalais a disparu loolu nag du suñuy wax wax yi ñi nga xamante ne bi ni ñoom ñooy jaay jën la. amar central yëpp léegi genn wàll gi Soumbédioune la ñuy ñëw genn wàll gi Yoff genn wàll gi dem Yaraax loolu moo waral fan ñu jën bi seer. voilà comme bu ñu dañuy dem ànd ak ki nga xamante ni bii nii mooy Aji Sawane mu wax ñu ci li nga xamante ne bii nii moom mooy internet bi parce que internet am na ñoo xamante ne bii ñu ngi ci seetlu bu baax am na ñoo xam ne bii ñu ngi ci seetlu bon am na ñoo xam ne ñu ngi posté ñu leen di tuumaal am na ñoo xam ne posté wuñu dañ leen di caricaturer di leen ko tuumaal loolu kii ñu koy nettali Aji Sawane la xaritu Assane Ndiaye. salaamaaleykum <laughs> mbokk yi ñun ñu ngi leen di nuyu. li nga xamante ni bii ni tey suñu reportage bi tey dañu ko dee indil moo nekk wàllu internet bi internet nag bu ñu xoolee xale jigéen yu bari ak xale góor yu bari ñu ngi dee yaxawoo ci internet bi because dañu si dee nekka di waxante wax yu yaaxu di defante yu yaaxu di wax wax yoo xam ne dafa yaaxu ba ñoom dañu si dee jaare daal di yaaxu li nga xamante ni bii ni moo di internet seetlu nañ ne mun nga see liggéey comme man ni ma si dee liggéey mun nga see vibe comme ni ma ko dee defee di call waa Gambia di kool waa Sénégal di kool waa Danemark di kool waa France mun nga see jëriñoo tamit loo xam ne dafa nekk loo xam ne bi liggéey bu am solo la comme ni ko journaliste yi ni ñu ni ko dee defee waaye internet bi seetlu nañu xale yu jigéen yi xale yu góor yi li ñu gën a bugga moo nekk affaire yaaxu yaaxu yu nekk si biir sutura tamit seetlu nañ ne amatuñ ko ndax because ni da nga dee def benn photo rek ñu jël ko daal di koy def direct si line bi ni ñu daal di ko dee gis loolu nag du samay wax ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo dee jëfandikoo internet bi ñu wax leen seen xalaat fexe ba xamal leen njariñ li ci nekk waaye aussi xamal leen euh, loraange yi ci nekk ndax loraange yi moo ëpp fuuf njariñ yi te loraange bu ñëw rek mën naa mën naa yàq lu bari ci doomu aadama. voilà merci beaucoup seen journal de la récap bu ñu fa jógee dañuy dem ci revue de presse de la récap mu ñëwaat revue de presse moom xam nga bu si ci yegg see damay jaay affaire de bandi bandi lu quoi. Oh, enquête de la yéenekaay laa koy tijjee enquête de la yéenekaay tey dafa xëy fësal xel bu njëkk quoi bu njëkk bi mu fësal mi ngi nii leen ko moom les denrées de la première nécessité de la alimentaire la xëy fësal séeréer yi am nañu problème parce que ceeb dootul niin sukar bi lu jëm ci ceeb diwlin bi yooyu yëpp dafa yokk flambée de la pri daal te nee ñu nguur gi mi ngi def tekkaaral waxagu ci dara Macky Sall war nga cee wax parce que bu dul loolu dinañ xam nga jamono nekkoon na fi bañ naan amoon na fi jamono yoo xam ni oh xaalis dafa daan bari <laughs> mais léegi ceeb mi ngi commencé ñàkk tiis tu den leen loolu loolu direct de la EPO direct de la EPO daal di ñëw ci li nga xamante ne bii nii mooy docteur Cheikh Kanté Cheikh de la port Cheikh Kanté war nga ma wax ma war si man nag Cheikh Kanté daal nee moom mi ngi. mi ngi ah, jël défense mag Sall daal moom ku nar a dóor Macky Sall bal moo koy jëng nga dóor ko ko ku ko nar a wax dara moo lay kii <laughs> kante eh, anti nag sama mbokk jabar la quoi sama jabar kante la kii quoi bon vox de la populaire lañ jëm vox de la populaire xam nga tey fi ay mise à demeure de la 2STV waaye di nga xam te ni kooku rek yaa xam C'est ko eh, vous êtes secrétaire ou bien vous êtes celui qui va donner les mises à demeure. Si tu me donnes encore mise à demeure, je vais te demeurer. daal di koy dindi mais daal juboo nañu juboo nañu daal euh, man nag dama yaakaaroon ne CNRA ñoom ñoo war a joxe ay mise à demeure waaye secrétaire mise à demeure ah dañu koy tëjee stade de la yéene kaay waaw mi ngi ni def ni ñoom daal waaw ñoom daal li nga xam te ni bii ni daal président wax na leen ko ci biir stade de la yéenekaay wax na leen ni leen amul ay nii la fi demee amul ay fédération bi nii la demee amul affaire bi ay affaire nii la këla këlëngee li ma bëgg mooy qualification coupe du monde d'office ndax dégg ngeen la wax fii nee na qualification d'office la soxla soxlawul ay qualification yoo xamante ni bii nii ay qualification takkale wala non monsieur le président affaire bi dama doon daw tuuti rek ma fakkas talu yooyu daal di daanu moo tax jotuñu qualifié qualification d'office la soxla donc loolu président mu moo ko moo ko moo ko moo ko wax loolu moo nekkoon tey suñu revue de la presse de la semaine ñu dem daal di jëli suñu vidéo de la semaine ay gars yu neex nag ay gars yoo xam dañu ñu ngi lii si li ay géejawaay ñu ngi foofu noonu xaaral ma woon la si ñaari gaay l'essentiel balaa may indi sama ñaari paa te ñaari chef de quartier laa am dañuy xëccoo quartier nag dañuy xool ñoom ñaar kan aussi si chef de quartier ak ku ci nekk <laughs> nañ dem c'est bon waaw bii ndeysaan suñ dëkk la quoi ñaari dof samay jóo lañ nag léegi dof yi xëy un bonjour xamuñu lu ñuy def quoi ñu xëy rek ne benn dof bi ne ngóor waaye mais mi ngóor waaw mais tey nañ foo nañ dàqante ñu laqu tey ku laqu baax na tey nañ laqu rek ngóor ne ko waa aja saa waay laqatu ngóor di ko wër saa waay a ngi laqatu ci ginaaw rido yi rek nguur wër wër wër wër wër ba sonn gisu ko ngóor wër ne wër wër ba sonn gisu ko mu ne ko ceeg démba te ngaa man gisu la de mu ne ko maa ngi nii de maa ngi nii ci ginnaaw rido bi saa waay jël bopp ngóor rek dagg tip rek denc moom it ci ginaaw rido bi. gars yi naan ko laa ilaaha illallaah rey na nguur rey na nguur mu nopp leen nguur du xam fu bopp bi féetee tay de waaw kii benn pël Fuuta la woon quoi am pël Fuuta yi des fois nekk Sénégal fii yaakaar ñu moom Sénégal pël Fuuta dafa bëgg jigéen mais ñemewul jigéen benn jour mu gis benn xale ndekete yoo xale bi mineur la amagul sax 10 xam nga rek xale jigéen léegi dañuy gaaw a màgg bu la Fouta bi fexee nax xale bi nax ko nax ko nax ko ba dugal ci biir ko ba violé ko yéen ñu war ko tëj ñu dem tribunal war ko jugé bi jot ñu woo ko Pul Fouta <laughs> la tudd xam nga xam nga muy indi ay mbokkam ñëpp ñëw taxaw ñu dem ba àtte ba pare. ñu ne ko Alpha Amour Diallo mu ne président ñu ne ko vingt ans de prison mu ne absent resalaamaaleykum euh, comme tous les jours ah comme tous les heures suñu plateau de débat de la semaine débat de la semaine nag ñu ngi nuyu kilifa diine yëpp di dem ci suñu mbokk chrétiens yi tamit ñu ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel bu baax rawatina ne ne gomis ne ne gomis ñu ngi lay nuyu lu bëree bari euh, encore une fois Eh, dañuy dem ba Madina Njaaj bi fekk fa Cerno Baba Galle Njaaj eh, sincèrement yaakaar iwaane Madina Njaaj be sabu Cerno Baba Galle nan toon ha joni eh, min calmini min maama ñu ñaanal tamit sunu maam cer Cerno Abdou Rabbu Hamdi Rabbi Njaaj yal na yàlla dolli ay leeram fële ca sax tey nag ma toog ak ñaari chef de quartier ñu xëccoo benn baraag kii nee na mooy chef de benn baraag kee nee mooy chef de benn baraag léegi nag euh, damay njëkkee ci sama càmmoñ euh, Alaaji Mamadou Dione ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi euh, di la maa ngi lay fay yow mi ma dalal ci jotaay bi di la nuyu di nuyu ñi ma bokkal fii jotaay bi li tax nag nga éviter ma mooy da ngaa dégg coow loo xëy ni da nga maam dañuy xëccoo chef de quartier man dama lay xamal ne xëccoo ma kenn man maa moom lii. waaw da ngay nuyoo ba pare balaa ñuy wax ci xëccoo bi. waaw dama lay damay firnde rek waaw. waaw da ngay nuyoo ba pare rek. parce que bu ñu nee bëre rek nga commencé xëccoo. waaw day mel ni da ngay xëccoo bu léegi. jërëjëf ba léegi jërëjëf ba léegi fi ma wooyee rek la. maanaam maa ngi nuyu ñëpp di nuyu adduna bi. di nuyu ñi ma bokkal jataay bi encore une fois. di lu nuyu. di la xamal ne dégg nga maam coow li nga dégg ba tax nga. éviter waaw loolu ñëwaguñ si da ngay nuyoo ba pare ñu soog a ñëw si coow li. nuyoo naa. waaw jeex na kon. nuyoo naa ah, damay dem si ama droite aussi fekk fa ah, Thierno basiiru Mbaye. Basirou Mbaye tamit moom nee na moom mooy chef de quartier bi. Ah, Basirou ñu ngi lay nuyu di la tefegal si plateau bi. alhamdulilah mhm, alhamdulilah rabbil alamin man damay sant yàlla. lu tax may sant yàlla mooy askan wi teg ma ci bopp bi nuyool ba pare balaa ngay wax ni nit ñi wóoloo ñëwaguñu si loolu waaw faw ma sant yàlla faw ma sant yàlla parce que lii dafa diis ñu tax ñu jox ma ko sama compétence moo tax ñu jox ma ko man nekkuma fi di këccoo di kiiroo di ñaayoo defuma loolu ok ok man defuma loolu maa ngi nuyu waa DSS télé Sénégal télé réew mi télé adduna bi yëpp di ko nuyu moom ah, dañuy njëkk ci moom ah, tonton Jonn ah, waaw li nga yor di ko ko kii nii léegi li lan la du dara sàllaaw du dara dama koy kii baadu da ngaa indaale ay xonjom wala ay jinni ci plateau yàlla tere ak ka ko jar da ngaa yor di ko ko joxoñ mais bu ma ko joxoñ rek man ak ko jar joxoñu ma la ko joxoñu ma ko ak ka ko jar waaw yow nga ni yow yaay chef de quartier lu tax nga ni yow yaay chef de li tax ma ne man maay chef de quartier bi waaw dama lay xamal ne man bi may fàq fee di fa dëkk nit ñemewu fa hmm. ay nomades di un ba six hmm. ànd nañu encombré jox ma ko ñii ma jiital ñu ngi lay ñu ngi ñuy dégg ñoom ñoo jël seen bopp forcé wu ma leen jébbal ma xool ma ba ma doy la moom ma Mamadou Jonn man leen je suis ñu ne ma doy nganu ndax bi ma fay dëkk miti woon na till yaa nga fa jaan yaa nga fa ñàngoor yi nga àll ba kenn gorogu ko ma nga fa man maa ñëw tey taxawal woote rimbaañ fa dëkk fa ba ñit ñi ñi me ko da daan yor sabar di wër ci koñ yi di yëgle ay xew ay mariage ay ngénte loolu la doon def mu am fit bay bëgg dee mu dem ci taylor bi mu ñawal ko drapeau vert jaune rouge mu ñëw def ci waxoo dëgg mu ne moom waxuloo dëgg eh eh eh dooma safal defal defal ndànk yow ci boppam yow yow drapeau Mali nga yor yow drapeau bi nga yor da du vert jaune rouge limal na fukki couleur ak juróom-ñaar la yor yow Fuuta nga jógee wax da ngay wax da ngay eh, bàyyi ma wax li nga wax du ma ko nangu de waaye yow waaw daf leen dànk rek c'est faux da ngay bàyyi ma wax déedéet bu taxawee na ma dara foofu ma yor góor gi oui mooy da ngay dal nag oui oui mooy da ngaa forcé da ngay nangu da ngaa forcé man naa forcé dafa forcé yaa ma fekk ma sama dëkk may forcé yow yaa ma fekk sama dëkk yow man fu ma la fekk sa dëkk man dama compétence dama liggéey compétence yow waa Fuuta ci boppam am nañ la pardon góor gi John ah? yow joxuma la parole moom laa jox parole bi looy peleb peleb di jaay loolu lay def affaire rëy rëy lamiñ comme rëy lamiñ nii bàkku réew mi barki demu lañ am ndaje fii bàkku réew mi ko moo ngi nii ka bàkku réew mi da nga ko war a mën a seet dakarte la ci formé ba pare moom mi di gën a tudd ci bàkkum réew mënu ko waaw yow demal ci bàkk réew mi PCTU programme mën ko yow man moom mënu ko waaw léegi di jëndil sa bopp rek bu mu lijjanti bu mu lijjanti sa bopp defal PCTU di jëndil sa bopp kora farpili bala fo leer yos liisi baalu tuune mburo suudang sudindi seela pesetu wakora sénégal rassemblé na ko wax na ko wax loolu ñun passé nañ lool loolu kale yi sax kale yi ndaw yi boo leen laajee. Eh. wax la pécé tout. da wax de Macky di nga wax sax leerul. Macky Sall Macky Sall bu la jàppee di am problème yéen ñaar parce que yow eh, defal pécé tout. d'accord loolu yëfu kale la. waaw defal pécé ah. eh, tout. loolu yëfu kale la. da ngay def nag loolu yëfu kale la. yëpp réew mi la bakk réew mi la. l'essentiel li ma la mun a xamal ci pécé tout Bokar ñun bañ ko doon def. Ah. fépp fu ma ko waxee dañuy bàyyi seen kër ñu ne ma yow voilà. waaw wax ko ñu bàyyi rek. loolu loolu jarul ma koy wax. wax ko rek ñu jarul. mais surtout wakara parfait foo le lion de la Jurée de de dent de la haie kay ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam nañ ko. waaw léegi nga kii man damaa dégg waaw pardon pardon déglu leen ma rek yow damaa dégg ni yow. Hmm. góor gi jonn ah. yow domicile. parce que am ñu bari ci quartier wax nañ ne domicile. Hmm. yow booy joxe domicile ay 500 ngay laaj. loolu mën nga koy laaj ma wax la ko. 500 ngay laaj domicile. waaw ba pare ah, jaay teere moom bu ñuy même bu ñuy jaay teere ñetti nit ñeenti nit yow loolu sa yoon nekk. effectivement. waaw li nga wax ci wàllu domicile laal nga point bu jar a xam. waaw. ndax la li tax may defee domicile. ah déglu rek man 200. waaw moom téeméer lay jaay. yaa xam li tax ngay defee 200. téeméer lay jaay 200 waaw da nga may déglu. déedéet laajoo ma yow kii moo ma laaj. lu tax ngay jaay téeméer domicile. lu tax ngay jaay téeméer. waaw dama nekk da ngay déglu Mbaj déglul. Mbaj déglul Mbaj déglul man 200 lay jaay. 200 la yow la war yow la concerne man sama un sama sama sama 500 moo ma concerne. waaw ku baax waaw. est-ce que comprendre nga yow li tax may def domicile à téeméer. lu tax nga koy def damay jënd encre encre leen encre bi ma koy fonde di ko defar dama koy jënd waaw damay jënd bi fauteur waaw dinaa ci jënd yaar ba yett waaw machine bi nga xamante ni moom mooy tapé di loolu noonu jabalaas bi dama koy fourniture dama koy tapeel te damay defar ay këyit loolu tax ma koy defee ak téeméer cent yi dafa am fu ma koy dugal pour ëllëg boo revenir ma am lu ma wax ak yow foofa xam nga loolu nekkul wax ku jub li nga wax fii yëpp jubul dara jubul yow lan moo tax wax waaw déglu rek wax jubul dalal rek nañu ko pelloo moo tax yow ngay def déjà voilà bonne question waaw lu tax may def déjà domicile domicile lu tax ma koy def maanaam photocopie bi ah, ah? ak encre bi moo tax fukki dërëm mooy def foofu loolu pour big bi la yaa ngi dégg moom domicile yi lu même nga nekk étranger nga dëkkuloo fii sax boo ñëwee mu jox la domicile xam nga mu ngi wiyale ah, loi bi yow xooloo ko dëkk sa quartier xam nga mu wiyale loi bi quartier xamoo ko dëkkul sa quartier xam nga mu ko wiyale déedéet domicile laa ci yemaleel gis nga tey bu ma waaw dama nag nag domicile ku dëkk sa quartier nga ko war a jox koo xam ne si quartier bi la dëkk dama am fond de caisse fond de quartier dama fond da quartier bi dama ko am waaw gis nga ñaar fukk ma ciy dugal wallaahi damay jekki-jekki woote ndaje jë jënd ay ah, nu mu koy waxee sax waaye maa ngi fàtte waaye kii ba yow. waaw léegi wuy ma wuy ma ah. pour ñu gën a gaaw. Ah. am nga du chef de quartier. lu ma ko kamal billaay su ma la ko waxee xamuloo ma ay waay xamal xamaloo kamal su ma la ko waxee xam nga lan ma. yow loo ma xamal su ma xamal naa la ñaar ko xamal loo ko xamal wax ñu ko. waay yow dama laa laaj wuy ma loo wax ñu ko. voilà loo ma am na bis. waaw ay sàcc yu jóge géej waay. géej waay. dégg ñu sàcc foofu ay kar yu bëri bu ñu seccee kër yi ñu jiital kari di ñëw ñëw ba koñam xam nga koñam moom ay gees maan ñoo fi ne ay fakk maan ay kale yoo xam ne tekkiwuñ dara ñoo ñëpp jóge nañ fa léegi jóge nañ ñu yuuk dégg ko dégg ko jóge nañ fa amaa leen recruté defar leen bu ñu yuukoo sàcc yi sàcc yi daw mhm. sàcc yi bu ñu dawee ñu jël kër yi ñu ne way dañ ko jël kër ñu yóbbu ko këram kër yi boobu ba léeg ci lay tabaski ci lay gàmm ci lay tam xarit delloowul ci lay noos. na la wax kër yi tamit bali bali yi moomu loo ko. wallaahi yow ndeke moomu loo bali bali yi. ci at si télé laa toog. adduna bi di ma xool. ndax nag télé bi egg na eh, adduna la. partout ñeenti xar la. man nag li mu wax ne daan koy séddale di ci dund. Eh, man du ñeenti xar. waa Linguère may déglu ak waa Fuuta ak waa Tanab. man fa laay jëlee samay xar di jëfandikoo waaye xar yooy ba léegi ña nga ana xar yooy xar yi ñu ngi sama kër ma mencee leen muy noonu <laughs> yaa maa leen mencee <laughs> dem naa police yëmbal wax leen ko ñu ne ma ah, menceel xar yooyu ndax yow jub nga menceel ñoom lu ma kii a dama koy menceel waaw man damaa gis xar yooyu yow man kat bii passé damaa ñëw nga ne ma ci sama bali bali la ay xar yaay bali bali la ah, yu ngande waaw bii passé dama ñëw nga ne ma ci sama bali bali la rey gaayu ma la ci bali ba ci yooyu façon yooyu yow maa ngi la jaay ci waa Linguère waa xaru Linguère yi yow laa la jaay arrivage boobu laa la lan ngay wax ni yow moom nga ko xamal kii li ma ko xamal waaw xam nga lan laa ko xamal waaw da ngay def lu bon ca koñ la man yow day tux di ko di nëbbu da ngay tux ay safur da ngay tux di nëbbu yow man mu tax billaahi day tux di nëbbu nag la la day tux te loolu day sos kii war naa tux day sos xam ngeen quartier bu ñuy wax chef de quartier da ngay am agrément bu ñuy wax chef de quartier dafay am kayit boo xam ni loi da koy jox pour wax la yow mën nga nekk chef de quartier. waaw yéen ce que am ngeen ay kayit pour mën a nekk. chef de quartier loolu kay mun naa la ko woon loolu mun naa la ko woon. bu dee kayit rek agrément pour wan ne. waaw eh, chef de quartier bi. xoolal foofu agrément teel man kay eh, tey nga xam ne waa nga ma ci nga ma ci naan eh, na waa nga naar ci naan naan naan soow agrément dama cee am am naa agrément. lii groupe scolaire la de. groupe scolaire. xoolal bi xoolal bi xaaral xaaral dama ko am fu ma ko denc fu bari xoolal bi beneen agrément ngi noonu man agrément nag la ma xam dañuy jaxasoo nag ndax li may def groupe même bi tam groupe scolaire de qualité le corps d'enseignement qualité ah. est engagé d'un ah, de prix activité loolu la ñuy wax fii mi ngi nii agrément ya xoolal bi agrément yaa ngi noonu agrément <laughs> leerul même bi tam groupe scolaire la de góor gi jonni ndax am nga agrément yow waaw waaw ki xoolal bi bi bi ngi nii c'est tout am ay euh, fu ma koy fiisee day bu ma <laughs> fiis de renseignement la góor gi hmm? ki fiis de renseignement <laughs> niveau droit d'inscription blouse scolaire menuiserie scolaire mensuel restauration assurance. kon sama booyee ko jaxase waaye xam nga agrément indi wuñu fii léegi du fi indi. mooy ngi ku moom quartier bi nag. waaw na lii da cee profondeuration rek mais ku moom quartier bi nga ma woon woon euh, kii de. wuyu ma. kon am loo agrément. am naa agrément. moo lay woon ne ma ay indil sa agrément am indaale ko programme bi du ah, programme agrément. ak nga indaale sa agrément. waaw waaw waaye nag bi may woy da maa woon ne ma pour wàllu xëccoo bi lay dégg waaye boo ma waxoon agrément ma waajal ko waaye am na agrément mi ngi kër ga bu la neexee tamit suba ma ñëw indi la samay agrément léegi yow dañoo bëgg di nga ñu indil xar yi fii voilà waaw nga indil ñu ko fii ci 2S mm. ñu wax borom xar yi ah, ah, yi réeroon géejawaay mbaayi moo ko for ma yéene waale ko ci télé bi wax mbaay moo for xar yi mi ngi ci tobaski boobu léegi déedéet bul yéene gum dinaa demaat police ndax ñoo ma waxoon menceel bu ma leen waxee ne dama ko war a dërsas ñu tiimale ko bu ma waxee ma indi waaye bu bu ne ma menceel ma bëggaat koo yëgle bu yàggee commissaire dina ma yow da ngaa wéele loi bi ndax dañ demoon ndësal <laughs> tey ba nga wéele loi bi day yàgg ah, ba nga wéele loi bi dafa yàgg ma xool sa agrément man dama rus waaw jox ma sa agrément kilifa gu toll ni moom indi agrément jox ko agrément yi waaw jox ma rek góor gi mbaj ma xool sa agrément mu ngi noonu teel ma bi si de koolal di koolal biil lii kay di dagg damaa rus sax man dag maa rusloo. yow yow da wala bu certificat de fin d'études élémentaire man maa falu ministère de l'éducation Darou Salaam Mbaj <laughs> muy noonu Mbaj kii certificat de fin d'études la de ah? <laughs> république du Sénégal da ngaa a dem armée bi da eh armée la de ah fin d'études la quatorze dix-huit quatorze dix 14 18. lii du agrément de. ah lii bokkul ci agrément yow xool nga bu baax. lii certificat fin d'étude la. def ñu foofu ba ci mbaj bi def ñu ko foofu. fin d'étude élémentaire daal ministère de l'éducation moo fi nekk. vu la constitution. Ah. vu le directeur. Euh, dix neuf cent quatre-vingt-dix daal lañ la ko joxoon. nga ne lan waaw bii est-ce que kayit bi. Eh. non du agrément. du moom du moom. kolal bi yow noppi rek yow. mënul fédétit la indi. notification de la fin de contrat de service. <laughs> hey service lan. fii dañ lay wax ne la contrat bi nga signé woon fan jeex na. ah déedéet boobu dañ ko renouvelé waat bii beneen la dama jaawale. Haalpulaar nga gasi. parce que sama doom farmata farmata bu ndaw. <laughs> bi may ñëw moom moo moom moo wax baabam bii moom. naam bi moom moo ko tegee côté. kala kala man indi woon naa gis nga eh, am na lu ma métti tey. man mii maa. yow bu dee la gasi. karal rek quartier bi maa ko moom te munoo fexe ba moom ko. yow noo moomee quartier bi. maa ko moom tey maa ko moom suba wallaahi. maa ko moom tey maa ko moom suba. waaw def leen dànk moom rek maa ko moom. waaw def leen dànk dañuy dem jëli ji eh, suñu vidéo bi nga xamante ne bii nii moo di vidéo anecdote dellusiwaat uh-huh. ñu tëj plateau ba tey waaw ah mais c'est sa waay daal waaw mais anecdote bi may fàttaliku daal bon bi ma fàttaliku ma xaw a dafa ma touché nag dafa ma xaw a touché nag benn côté ndax j'avais un ami asbeke lañ ko doon wax asbeke muy jàngee école 16 man may jàngee école quinze ma wàcc école 15 ñëw fekk ko école 16 ay 6 heures yooyu 5 heures 6 heures ma ñëw rek fekk mu toog quoi y avait passé béki affaire yooyu ma ñëw fekk mu toog ma fel béki yi xam nga commencé ko di ko football di ko kàjji affaire yooyu mu yóotu ma tànk. dafa ma xëcc rek ma wàcc sa waay téeman gis nga fi ma cote noonu ah dafa ma cote rek continuer da doon tam da doon kii 12 mu continuer 12 pion la ma téye gars yi 6 heures ba 7 heures gis nga bi ma bàyyee fi ma doon nooy ci suuf ñaari turu la def turu bu ci nekk mën na 1 mètre man loolu mooy suma arrêté ko ah sa waay waaye jégalu lu ñu wax ah, ah, loolu vidéo hmm. anecdote bi la ah. eh, te rax ci dolli tamit am na gi ngeen ki ñu këlteel nee na yéen ñaan ñëpp du ngeen chef de quartier da ngeen leen di forcer domicile cinq cent francs ku ñëw ci quartier bi ngeen jox ko domicile xamu leen ku fa dëkk xamu leen ku fa dëkkul nee na yow drapeau Mali nga def eh, drapeau Mali yow sa bës nee nañ sa drapeau bi drapeau Guinée la drapeau Guinée man la ma yóbbu Guinée waaye sëñ bi nag gis nga xam nga lan la man dofuma déedéet am na yoo xamante ni dafa mel da ngay kokkali nit ki quoi. voilà wa waaye man de woote déedéet. guné fu ma jëm déedéet man damaa laaj nit ñi. ñu waa koñ ba laa laaj ñu ne yéen ñaar ñoom ñoom ñoom yéen ñaar ñëpp seen chef de quartier ñoom. wasam moo leerul reconnaître ñu ko. ban tur nga laaj ca foofa. ah wasam moo leerul laaj naa fa dem nee nañ reconnaître leen. laaj nga Maguette saw laaj naa Maguette Sow nee na reconnaître leen. laaj naa Awa Thiam nee na reconnaître leen. waaw moom moom. laaj naa Ousmane Mballo nee na reconnaître. moom te ñooñu ay notable lañ ci quartier bi. moom la ñu reconnaître waaw. baax na ba ci biir euh, Boubacar. nee na la ñu toog xëy na nag télé leen wax ñu wax lu ñu xamut. waaw te télé bi nee na la dina bi dafa bi jéggi réew mi. waaw léegi nag télé moo leen wax ñu ne xaw ñu xamoo ñu. waaw baax na man bu ma demee dinaa ku ne naa dugg sa kër wax ak yow. kër Maguette Sow laa njëkk a dem leerul baax na. leerul looy tëjee waaw tëjal tëjal lan ngay tëjee maa ngi sama xol yéen ñi may seetaan nag ngeen xam ne sama xol jeex na desewaar nañu ma <laughs> nu ma nuyoo ngeen en xam ne indépendant de tout laa la maa ngi nuyu réew mi di nuyu Afrique di nuyu borom télé bi di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a dëkk di nuyu gërëm papa yaay adduna bi laay gërëm sama xol jeex na quartier bi nag yéen a may dégg maa ko moom tey ba addunay tukki maa ko moom waaw yow looy tëjee ma ruus naa sax looy tëjee tëjal li may tëjee mooy maa ngi nuyu sama waa quartier fi ma nekk ñoom dañu ay jàmbaar lañu maire mbootaay yi chaque dimanche dañuy def set setal ñoom taarama ñoom geddaa ñoom chaque dimanche dañuy def set setal maa ngi ñuy waa quartier bi yëpp ci niñ ma jàppalee ma nit dinaa leen jàppale waaw nit boo ko wóoloo da koy bàyyi mu liggéey ñoom dañ maa bàyyi ma liggéey chaque dimanche. waaw sànqal drapeau bi nga drapeau ah, Mali drapeau boobu du drapeau Mali de. drapeau Mali la du drapeau Mali. amul étoile. aa ah, am na rouge waaye am na rouge am na rouge. am na rouge am na rouge du drapeau Sénégal version rouge bi. waay am na rouge. étoile bi rouge bi. loolu terroir bi moo. jamonoy robinet mbedd robinet mbedd fi na jabar jaa fa toog. Ah. par ñaar fukk la di weele waaw robinet mbedd moom. foog noo dëgg robinet mbedd ba foog noo dëgg war nga koo wax ci sa robinet mbedd ba. ci waaw léegi waaw defar naa robinet mbedd bi da ngay wàññi paan bi yow di nga ñu indil xaru géej waaye. voilà da ngaa bëgg def. voilà xam nga xaru géej xaru géej waaye nee naa la police moo mën a naa ko ndes xam nga dafa am yoo xamante ni mënoo ko expliquer daal merci ah, beaucoup ñu ngi pas des des des créoles daal. ñu ngi remercier ñëpp ñu nekkoon ci technique bi Demba ah, ah Mbagnick Bathily ci lumière bi ànd ak Lay Thioune sincèrement ah, ànd ak sunu sunu sunu stagiaire bi ak awa eh boy bu tooy maane de la réalisation bu ñu fa jógee dañuy nuyu saar policier SAR policier bu ñuy paree daal di ciy teg Thierno Baba Galle Gaye ak Thierno Baba Galle Ndiath Penda Ndiath. Eh, di nuyu Ndeye Fatou Gambi di nuyu euh, sincèrement Aliou Guissé depuis Congo ak waa benn braak yëpp di wax ni tamit euh, sincèrement ngeen àndandoo defar quartier bi ñun ñëpp ñu bokkandoo defar quartier bi waaw man bëgg naa nuyu sama ñetti mbokk daal. waaw euh, Aji ak Ousmane ak Pape Namul Dara. waaw ñooñu samay xarit la ñoom Liberté station. waaw Aji Samb moom daf may teral. daf may jàppale moom daf may jàppale ci quartier bi chaque jour. Mm. mu may conseillé di ma wax. sa ci yi nag. set yi ñu xàmmee leen ñu xàmmee leen ñu wax ay mag eh, lañ eh, fekk du ñu eh, ma ay sa loxo boobu bankal sa loxo boobu ngay wax daan sàcc yi naa voilà waaw man pare naa ci day ah, bu ngeen nekk ay day sàcc la la wax waaw doomam moo koy bindal na wax waxal lii lii lan la ay garage ay voilà bii moom àccaa moo ma ko jox ba kay jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabi ci beneen émission euh, info di doo dara nekkuloo dara nekkuloo dara da nga forcé da nga forcé laa la wax géwél nga woon yow géwél nga woon géwél nga woon ba tey gërëm yor mbaggu di dugg si koñ yi di di di wayaan nga jékki-jékki nga dem ci tayloor bi yow yow yow géwél nga woon laa la wax yow da nga amul sëñ bi amul eh, dara dama ne la. loo bëgg léegi li ma bëgg. dama lay laaj loo bëgg yow. nga génn carte nga bëgg wala dara yow bëgg. nga génn carte bi. yow xam nga li ma métti gënal carte da nga ñàkk fayda man yow mii yow da nga ñàkk fayda wii tam ñàkk fayda ala eh, wii tam ñàkk fayda sax topp ma ay eh, wii tam topp ma amul topp wii tam ñoo bokk ale nanu def jaay wii tam nawal eh, eh ar ba wii tam ñàkk ar ñu dem wii tam wii tam ñàkk ar ñu dem ñu jaxen dëpp ñàkk ñu dem kaay bu ñu demee ci ko bi xam lépp dëgg